hello guys asalaamaaleykum mbokk yi seen xarit Dieynaba Diallo moo leen ñëwal si di seen site Libit bi nga xam ne yéen ko tàmm di bokk ak ñun DS USA tey nag li leen amal ci plateau bi mooy li xew ci réew mi mbaraan weeg relation yeeg ak diggante xarit ak xarit dinaa njëkkee si diggante xarit ak xarit parce que xariti tey doy na waar. xariti tey doy na waar sa ko Sénégal ak Gambie lii xew léegi man ragal naa parce que nit boo demee ba wooyee nit sa xarit ngeen di ànd di daanoo ko jóg lu bari ngeen suyee ko like ay xarit ngeen man fooguma ne uh, yàlla war na koo ubbil wërsëg boo xam ne di nga ko iñaanee iñaan man si man baaxut nit waruta iñaan nit waruloo soxor parce que boo gëmee ndogali yàlla rek doo sonn léegi xale jigéen yi da ànd ak nit nga gis ne moo la ëpp a wërsëg wala moo la gën a am dara rek nga commencé di ko iñaane wala foo toog di ko yaaxa loolu baaxut gis nga àdduna fii yàlla moo ñu bind emalewul ñu baaraam yi nu em nit ñi noonu lañ em yàlla emalewul ñu soo nit ñi mënuñoo em wërsëg mënuñoo em ay bëgga bëgga soo booy ànd ak nit nu mel buggee ko noonu bul yaaxa kenn lim am ñaanal yàlla Euh, mu dooleel ko te nga ñaan yàlla yow it mu ubbil la sa wërsëg euh, man loolu laa amoon pour wax si euh, léegi nag li ma bëggoon a wax ma moromi jigéen yi maa ngi déggoon fan yii am na xale bu jigéen bu gaañu ñu ne ni ñu ne xaritam moo ko rey am na tam beneen xale bu jigéen bu gaañu xaritam moo ko poisonné lan moo waral iñaan soxor sa xol bon ba nga war a jël poison jot ko sa xarit pour rey ko ngir ne moo la ëpp ëppale wërsëg wala moo la ëppale xaalis wërsëg bi bi mu am noonu yàllaa ko ko jox boo julee ñaan yàlla yàlla dina la ko may nañ leen wàññi soxor yeeg iñaan yi te ñu xam ne yàllaa ñu bind emale wuñ ñu ñu ne ñun ñëpp mënuñoo em wërsëg ku nekk lu loo am euh, nga doyloo ko yàlla nga santee ko yàlla xam ne yàlla loolu la dogal ma ñëw nag si cadre mbaraan bi xale jigéen yi nañ leen bàyyi mbaraan bi nañ leen bàyyi mbaraan bi ñun mii ñoo tax ñu làmb parce que bu ñu nekkee paate nekk ak Demba nekk ak Samba ñu bëgg a mbaraan paate bëgg a mbaraan Demba bëgg a mbaraan Samba du yomb comprendre nga après góor yi dafuñu buñ toogee ñoom seen bopp dañuy comprendre nañ leen wàññi mbaraan bi ñu jàpp si kenn sérieux yi ndax ñu mun a sëy ndax làmba bi mun a wàññeeku euh, da ngay gis xale bu jigéen mu nekk ak kenn koo xam ne kooku la nopp mu am yeneen kaat far génn ñetti paa ak ñaari yeneen ñaari xale yu góor. ku nekk mu ne damay mbaraan kii damay mbaraan kii nañ leen def ngir yàlla ñu bàyyi mbaraan bi ñu em si kenn ndax ñu mun a am jëkkër ñu sëy ndax lamba bi mun a wàññeeku. léegi am li ma mënoon a advice suma moromi jigéen ñi mooy ne nañ leen em si kenn affaire yi euh, alal bu mu la dugal si yéen ay alal bu mu tax mar naan bu mu tax nga naan petit mar naan bu mu tax yow nga ne ah man de tey. lii laa bëgg dama bëgg a cheveux naturel dama bëgg a iPhone dama bëgg a um, jëndal lii dama bëgg a jëndal laa dama bëgg oto dawal oto moo tax ku nekk nga dugg si di si mbaraan gis nga sa morom di dawal oto may nañ ko oto gis nga sa morom di téye iPhone gis nga sa morom di solu wërsagam la yàlla moo ko jaarale si ko ko ko may waaye du keesoo mbaraan moo ko ko may wërsag boo xam ne la yàlla daf ko jaarale si nit nit kooku jox ko ko bul ko gisee ne diw def na lii am na lii mantam dama ko war a def amul benn sens amul benn sens like it doesn't even make sense méegul benn sens si man lu ma gis nit uh, si yourself in every relationship yo man gis naa fi nit yoo xam ne dañu nekk ak nit boobu amul dara tey be kooku ñoo nekk ak milliardaire like billionaire tey mu koy teral gis naa ko si koo xam ne dama koo xam comprendre bu doon ne moom tam dafa waxoon ne su ma moromi jigéen ñi lii lañ nekk di am si góor kee bu ma doon topp du ma sëy moom tey lim si am du ko am tey jëkkëram ñëw na nekk milliardaire tey jëkkëram fu mu toog day baakoo jabaram jabaram bi mu leen bi mu doon nekk ak moom amul dara so ma li ma leen mën a ñaan mooy buñ seet ne diw bëgg naa ko waaye amul dara rek du ma mun a nekk ak moom wala du ma mën a sëy ak moom nañ leen def ngir yàlla ñu bëgg a nit ngir yàlla ak yonente bi te buñ séentu dara te ñu wàññi mbaraan bi ma wax si affaire relation yi xale góor yi tamit doy nañ waar maa ngi ñëw si xale góor yi da ngay gis jigéen boo xam ne mu gis la bëgga la nopp la ngir yàlla tax ngay nekk di caaxaanee xolam wala léegi man xaw ma ndax mbaraan bi tam moo ko waral waaye da ngay gis góor mu gis la tey tey tey tey da gis góor mu gis la tey tey tey tey tey suba mu bëgg a ak yow dara comprendre xaw ma ndax mbaraan bu bari bi la wala dañ dee foog ne xale jigéen yëpp benn lañ da ngay góor mu xamanteeg yow tey tey tey tey tey tey bëgg naa séq yow dara wala mu laa wax ne ah ñëwal suma kër ma may la cinquante mille ñëwal suma kër ma may la 100 mille mel ni yow zaaru caga nga mënumaa comprendre lu tax xale góor yi di def loolu noonu munoo gis jigéen si mbedd wala nga tasee jigéen nga ne danga koo bëgg ba pare tey tey nga bëgg a siix ak moom dara loolu mooy lan loo ko foog man si man moo tax xale jigéen yi di mbaraan parce que yow boo boo gisee ni tey tey ne ko kaay ma may la 200000 ñëwal suma kër bu dee kooku mu ngi am problème yi 200000 day mbaraan li ma leen mun a wax boo leen gisee jigéen yi jox leen respect suñ papa yi dañ respectoon suñu yaay yi dañoo respectoon suñu yaay yi jox leen respect su time boobu suñu yaay yi nekk ak suñ papa sax comprendre nga soo gisee jigéen jàppale ko euh, wan ko dëgg wan ko de dëgg moo la tax a jóg comprendre nga jàppale ko te yërëm ko bu ko topp ngir dara man loolu laa leen mun a wax yéen xale yu góor yi a relation léegi tam métti naa dangay nekk ak góor am yaakaar ci moom góor bi fekk moom yow yaakaar ak mbugeel bi nga ko amal yépp moom caaxaan moo ko tax a jóg si yow daf lay caaxaanee panti pante la ba doyal ci yow dem yoonam dem takka keneen da ngeen war a bàyyi loolu bàyyi leen xoli jigéen yi ngeen di toroxal jigéen yi bari ñu ngi fi bon góor moo tax parce que yow mënoo xool nit nga gis ko bugg ko nga nga wan ko confidence ba mu la óolu dugg ci yow ba pare nga ñëw ne ko ne eh, nga ñëw foyee ko ba mu la neex nekk ak moom ñaata at di ko foyee ba mu la neex nga pare pour takk jabar nga dem takka keneen dafa metti si xol parce que jigéen bu nekkee di dunda loolu toujours toujours si ay relation relationship after jigéen boobu daf see wax ne ah man lu tax góor yi duñ ma dee bugga góor bu ma nekkal jox naa ko suma lépp waaye buñ paree dañ may disappoint bàyyi leen jigéen yi ngeen di toroxal lii moo tax jafe-jafe yi si àdduna bi suñ taami ñu papaw suñ taami yaay yi ak papa woon jafe-jafe yi nit ñi duñ daan stressé lu bari parce que kenn du daan toroxal jigéen léegi toroxal jigéen moo bari si réew mi loolu moo tax nit ñi di stressé stressé bari ci réew mi jafe-jafe yi bari si réew mi ah ñaaka bi bari si réew mi parce que jigéen gis nga jigéen yàlla moo ko fonk xooli jigéen yàlla daf ko fonk jigéen jigéen yi ñoo leen jur yéen góor yi jigéen moo la jur yar la ba nga mag ba nga day ni nga war a day si kon si man jigéen da nga ko war a respect and then war nga koo jox lépp lum soxla bégal xolam waaye du pour naxaral ko wala or ko wala tuutiloo ko dafa metti ci xol euh, man gis naa fi jigéen yu bari ñoo xam ne toon nañ ba nekk lesbienne xaalis dugaloon sel ci affaire yi lesbienne waaye toroxal yi leen góor toroxal moo bari seen xol yi mënatut a jël affaire yi góor mënuñ mënuñu ñoo they can't even stand any man in their life anymore which dama leen ñaan ngir yàlla yéen góor yi bàyyi leen jigéen yi ngeen di toroxal seen xol boo xamee ne buggoo jigéen bu dugg si moom pour xam ko rek dem bàyyi ko mu seet keneen ku ko bëgg ngir yàlla tax loolu laa leen di ñaan ah, ma bëgg a tàggatoog yéen nag ah, ba beneen yoon ah, incha allah and I'm saying goodbye to you all and I'm telling you guys um, subscribe to our channel share Ah, ngeen ngeen share suñ channel bi ngeen subscribe ngeen like ngeen view suñ ah, videos yi ah, kontaan nañ ba beneen yoon incha allah bye.